loolu itam ñun daal di saaroo nattu man dañuy itam ko dem ba di weer rek balaa nga xam dafa ñaq bu ko laajee dañ ciy kaajee. yàlla def naa ma nu wow saarlu ko waxoon wàcc na ci xare Fatu Makka rek xare Fatu Makka jaaree ca dañ dem jàngoor ca Hudaybiya gannaaw ba ñu weenoo ba yonent yi weenoo Quraysh ñaari ji teew lañ fa Banu Bakr ibn Waayil ànd nañoo Quraysh ba Banu Ubaada ñoom ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Banu Bakr na nañ danañ ànd ak Quraysh bu xaree Quraysh ñu xaree yow ñoom itam bu xaree ñoom Quraysh xaree yow rek bu saxaata ñoom it ànd nañoo Yonent bi bu xaree Yonent ñu xaree yow ñoom it bu xaree ñoom Yonent Yonent xaree yow. ba loolu amee juróom-ñetti weer lañ ca teg ku bokk ci Banu Bakrin boobu ku bokk ci Xusaasa ñi nga xam ne ñooy xarit yonent bi rek ñu daal di yónni ay gawar ñu ñëw fekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Madina ñu ko yonent yàlla yow ñun de su fekkoon ne koy su ñëw boom ci yow ñun danañ ñëw ànd ak yow waaw dimbali la nga ko yëg boom ñun nag suñ bokkee boom lañ ci ñun rek ci Banu Bakrin ndax dana ñu dimbale mu ne danaa leen dimbale yàlla bu ma yàlla dimbalee ci su fekkee dimbalee wu ma de danaa leen dimbalee su fekkee man rek am na sax xanaa xare waa Makka dañuy ñëw mais su yéen a fekkee xare dem ànd ak Xusaasa ñi dem tool yi Banu Bakrin Quraysh su leen ñëw ànd ak Banu Bakrin xare ak yonent bi yonent xam ne li koy gàttal mooy far dem xare jee waa Makka rek mu dem takk xareem boo xam ne fukki njënd lañ ci xare kat xare bu mu daa xare daf koy nëbbu. su waree jublu ci wàllu ji naan waaye ci wàllu ji lay laajte ngir réeram tan fa muy jëm ndax ay noonam bañ a doon fu mu jëm lu mooy fatu makka kum ba mu ca dogoo ku ñëw ci saaba yéen ba joxe ba xam ne la waajal kat makka laa jëm. te takk xare boo xam ne fukki junne lañ wala fukki junne ñaar ñu jóg bëgg a dem makka rek xaafi naa bi ba saaba dem nga ci saaba yéen bi nga fekk woon barat daal di wax teeku ñëpp bind leetar waa Makka ne leen yonent ngi ñëw di xare teeg yéen ñu ngi am xare boo xam ne dañoo bëri ba mel ni guddi te waat naa ci yàlla bu génnoon moom rek di xare teeg yéen it yàlla dana ko dimbale kon nag luy seen nit di nga xam ne mi ngi ñëw xare boo xam ne mi ngi mel ni guddi ci bëri fay fukki dinaar ak ndaw boo xam ne mbayala mbayala bañu xaasim la woon dañoo yonent bi jigéen la woon yoo xam ne ci fàggam ku digle woon rek ñu ne góor ñi góor bu bëgg jigéen rek ñëw ci moom loolu la métier bu ñàkk nag war a ñëw ma dina fekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent ne ko looy wut mu ne ko dama laa sodoxu si yonent ne ko ana koy na ngay ñàkk bay sodoxu ana waxambaane koy fii te yow butik nga rek boo xam ne ku jot ñëw jënd mu ne ko rey nga ñëpp sama far yëpp rey nga leen moo tax ma tuuma tuut ma ñëw dina fa dox si yonent fa tax ko muy ñibbi Makka rek xaatim neexal ko fukki libi door xaatim neexal ko fukki libi door ne ko yóbbul ma yor bi joxal ma ko waa Makka mu dëkk waaye ko ci kawaram war dem ba daw ba ko xaar Jibril wàcc ne ko ak ndaw ngay dem Makka ma ngay yóbbaale lettre boo xam ne day yëgal Quraysh ci sa mbiddeeg yéen a ngi si naa yu am miqdaar ne leen dabal leen mën daal foofa nangu lettre bi mu bëgg a yóbbu waa Makka bi mu bëgg a yóbbu waa Makka ñu ñu dab ko dab ko ne ko téere bi ngay yóbbu lettre bi ngay yóbbu Makka waa Makka moom lañ la laaj mu ne amee moo benn lettre ñu ngi ci bagage bi yëpp gisuñ dara gis naa yu nekk ñu gën a dab yéen a ngi wax lu dëgg daal di bocc jàppeem ne ko génneel leetar bi léegi wala ma xaw la te jigéen yi aram la gën a bañ ci bu ko rey baax nga gën a mu ne ko sori ma kon waaw ma génne leetar bi dinaa lii sori ko mu dal di fii léttam génne leetar ba ñoom ca bind loolu su gëne ci xaati naan baytaata jëm ci projet yonent ni jëm ci yeneen xare boo xam ne dañoo bëri ba mel ni lëndëm bi te yonent jàng leetar ba oo xaati ne ko xaati ci bind lii mu ne ko man waaye laa ilaaha illa huwa binduma ko ngir murtad gannaaw bu ma dee jullit binduma ko ngir naafeq binduma ko ngir bind naa ko rek ngir xuree ko man ku fa ku ca topp la aw ma faaf kan te mbooleem saaba yëpp ku nekk am nga fa sa mbokk bu dee xam man saaba ngeen fa bàyyi lu may man leetar bi su ma ko bindee du la wàññi dara du tere yàlla dimbali la te xuree si dinañ foog ne seen xarañ laa bañ te sàmmal ma ko la ma fa am illaa illaa illaa illaa lii rek la du leneen li dinaa war ne ko fee jaafee te yéen a digal ma ma topp bopp bopp bopp naa fekk bii rek lii naa fekk la yonent ne Omar xanaa xamuloo ne yàlla dafa yónni waa Badar ne leen jox leen ne leen neex baal naa leen Omar sant jooy ne yàlla tam yonent sama xam. laaj bi daal di wàcc nag ne ah yow dina amaloo eh yéen gaañ jëm alxuraan laa ko taxitoo bu leen jàpp nag du muy noonu sama waa du wokk moom noonu seen aw yaa ngi di xarit pour ko noyyi da ngeen jot a yéen jëm ci ñoom surtout yonent bi di nooy ci dara ci joxe gis nga jënd ko lëkkina amaloo te moom rek la. waxat ko lool tamit dinañ fi ma jaar dina fi kanam leen ñu wax ci daal waaye moom dina islam la yokku ñu ko nag danañu yokku ñu ko nag danañu génne rasul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam way yaakum ak yéen ak doomi moom bu ngeen gëmat billahi ci yàlla rabbikum te borom seen ci kum def nekk ngeen xare ci jënd ngeen jaar ngir ngeen yow jaar ci tabi yi ci diine sama parce que dara ma baax yi ak ci fat ngërëm sama bu leen ngeen jàpp ñu di xare def su tiroona mais da ngeen bóotal ci leen ci ñoom bi ma war ci dara ci café waa man man yàlla alors maa ngi xam bi ma xay kum jëlee ngeen dund waaw dund na ngeen feeñal de ba ma ñaatalu ku def dund ko muñ kum jiyee ba xam ba léegi dama ko wax ak ñoom dem ci jubbe yéen def loolu waaye ñu nekk foofu dem fuuf nañ leen yàqoon ñu nekk lakk ñu leen adaa ni moom de yéen de yéen leen di jéem a neexal waaye ñoom buñ joxe ci yéen alam ngeen de noonu rek lañ ne wala ci doo sañ tallal ci léegi ñu jëm ci yéen ay diom ay loxo seen ci rek ak jàpp waaye si la doon ak lan ngeen di doy ci lu ban di leen xasee nañ ñu boo doo ñu def nañu loo fàttali mën a yegg seen lan tam naa kum jëriñ ci leen alhamdulilah ay jëriñaale seen wala walaalikum di jaajëf ay doom seen yow nag yàlla ci jëfandikoo jëmee la rek gis nga loolu yàlla sax dafay nekkum diggante yi nag seen diggante wala yàlla def na ñu xam ne moom naa defoon dama leen jëf rek parce que am na kon la ñu leen di dootul roy teel asalaamaaleykum ci Ibrahima ci Ibrahima rek du teewoon ngeen mel ni yéen ci yàlla Ibrahima wala si nag ñaañu maa la waxee ñoom moo is xaaral ba ñu waxee xaw ma ñu ñaan ci yéen dinaa naka noonu wala way sañ nañu min kum ci yéen loolu moo tax dana assuré da ngeen jàmm kum ci yàlla. kafarnaa yéen bi kum ci yéen kafarnaa bi kum fakk na mbéyam ñun xawatuñ leen wala yéen gëmu leen yàlla de wa badaa fee na bay naa diggante suñu bay na ko diggante leen ala daawatuñ noone wal bax baawum bañaan abadan dakkat hatta toobinoo ren ba da ngeen gëmee billahi yàlla wax dëgg yéen ñooñu rek loolu la ñu waxoon keroog ñu ne tam ngeen def noonu la xawra Ibrahima roy leen Ibrahima ci mboolee mi waxam ak ci mboolee mi jëfam la xawra Ibrahima dara wax Ibrahima yaa ngi ñaan baayam laa saxarana dana ma balal ak ñaan la da Ibrahima ci doon bayam ne ko danaa la balal ngir yaakaar ne dana gëm yàlla kooku de bu leen ko joxee ba sax ngeen di balal seen bay ya nga xam ne ay yéefar lañ ba ma am li ko jëriñ ci ma def rek ñaan la ne laay ci mbugalam yàlla ñun seen dara de rabbana ya borom sunu alayka ci yow tawakkal naa la nu dellu way léegi jëm ci yow anam naa la nu dellu way léegi jëm ci yow masiru na dellu waaye rabbana ya borom sunu laata jox na yàlla bu def na fitna tan ñu napp ci lëg na ci ñaan ñaane kafara wet nañ waxtir baala la naa ñaanu rabbana ya borom sunu naka naka yaram fee wala ci yaa ji na ci góor ala ci maa ji ala ci jëfee waxat kaana nekk na lakum ñaan leen yéen boolem xeeti yonam ko lii ci ñoom ñooñu di ko suuf rek ak na fi guddaa jox ak moom tamit ñoom kenn ku ne yéen doole moom yaakaar laa yor yàlla war yoo mën a jënd laa yor yaa ngi jënd ba man ñu yor tawal la ku dëkk ndamu xëy na laa naka yàlla ba mu aw xam nga ñu koy doon wala ci ñu leexul alhamdulilah kul sant ndamu. afal ah sama yàlla ne yàlla mu dafa bay na comme diggante dafa bay na ñu na ak diggante ñaari maa day kum noonu ngeen ñoom noonu ngeen ñun ñoom moo dafa ko fay rek wàcc na ba yore sax yow maa bi bata doomi abi su bi ànd noonam bu mag bi yonent maa bi bata moom gëmoon na yàlla ànd ak jëkkëtam gàddaay dem xabat jëkkëtam dee yonent bi na jaasi ne ko labata mu maa bi bata rek mu labat ko takkal ko kon na jaasi ne ko ko xamal waaw yéene ko yonent bi rek ñu ne abo abo su fi am xanaa yëgoo lu xew mu ne laam ñu ne ko moom ba sakk na sa doom ah mu ne ku yéen loolu loo xam ne kenn du oññi ba kanam de ku nekk bëgg naa faral de moom te la tàmbalee am café ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jébbalu te la yàlla waxee ne yàlla mën naa ci ñii noonu gi nekk ci seen xol nag la def bëggee seen diggante wala yàlla xabirum ak yaatam la mu wala yàlla xabuma ji bay la mu yàlla xajal laa naakum laaw tere ci leen yàlla ani la dina ci ñaan yàlla ñu xaajlookum ko yow ñoom yéen koo xam ne di jullit waaye xeexut ak yow ci diine ci diine wala ñoo ko jëw ñu génne wuñ leen ñu yére ku ci kër am tabar woom bu ngeen baaxee leer wa yoo ko ngeen maam yi leen jëm ci ñoom la léefar bu la noonu xeexut ak yow jéem laa génne sa kër nga jëflante ak moom jëflante ko rafet loolu yàlla aayewul leen ko rek dina laa naka yàlla yi mu dana mu yoral dina way maam ña dina maa ngi maa ko laaw naka tere na leen yàlla am na dina ci ñaañoo xaatu na ko xare na yow yéen ci diine ci diine léefar xare xale rek lañ leen sant ngeen noonu ak moom koo xam ne ma ngay jéem a topp bakkan di la jéem a génne sa kër di la jéem a yàqal sa diine waaw xëy na comme dañ jënd leen ñu ngi leen di gis ci kër yi wa saa loolu dañ dimbali seen waaye xalaat ñu ngi gën a jël am taw la woon dañoo ñëw ak ñoom. waxuñu la loolu la mu tudd même wala mu leen ñoom ñu yële xalaale yooyu boobu daay dañoo def ay ñoom saa yu ma ñoom ñu def fan de. yaa yoo xam ne damaa mën jaaraatu Moussa Diar Moussa Diar kooku moom naa ko wàcc na ba nga xam ne dafa am ay jigéen ñoo xam ne dañuy dawal Màkka ñëw fekk ci yeneen dugg ci Medina jébbalu suñu jébbaloo nag waaye yéen a sallallahu alayhi wa sallam jëm fee tax na buñ jàppee dafa mel ni ñu may leen waa jëkkër ci saaba yi pour de ah yore si naa amuloo et yéen gaa ñu dem ak waa ñu laa jaaraat ñu dem ci kër leen ak moom ñaar bële ba muy jigéen mu waa jaaraat ñu ñu doon jàppale. donc tey loolu na mat leen leen rek su jigéen dara ci ba day ñëw nañ ci biir lépp nan ko natt ba xam dëgg la am déet ndax islam ko yëpp ndéem am bañ jëkkatam pour que kenn ci saaba yi moo ko tax a jóg. daa yàlla alal mooy xam nga nii maa ngi ne ci xol ci gëm fee yàlla xam na ndax gëm yàllaa ko yëkkati am leneen day naa dem ci moom na dem jot ngeen leen moom ñaar suñu ñëwee gëm balaa ko joxoon na bu leen teeloo leen yëpp fa ñu jëm jëlee waaw jigéen joo xam na ne ñëw na gëm yàlla fekk ci jullit ñi nañ nañ ko maye jëkkër ci jullit ñi de bu mu delloo ci makkanante daaw nañu jël ñoom ñu lu muy xalaat la ñu doon ñëwee leen wala am jël ñoom yaxi doon nañuy xalaat la ñu ñëwee leen de ndax dañ ko tee di jugee nii ba xalaat na waaw doom dox leen ngeen maam dox wala ñu dul loon waaye jëkkër ci ñàkk jabaram téere ba gën a am am lislaam gën a maandu fay leen ko juróom de wala ñu naan leen bàkkaar alaykum wax leen am tam juróom la fu ngeen denc leen saa alaykum na leen jox leen leen juróom na ay campeon wala tum ci kooku leen jàpp keneen sa ngeen saaxee te buumi yee ba yéene pour yenn koo am ne gàddaay la ci jigéen ñëw na sa tey tax na da ngay jàpp ne dañu may la jëkkër ci jullit ñi wa alors laa ngeen yéen itam maa am sax tum na ngeen dundee su fekkee faxam ba xam na itam jigéen dawal la ci jullit ñi dem fekk yéefar ya kooku itam seen tax na na ngeen laaj yéefar yi ñu delloo leen can ñu ci ngeen dem delloo can ñu laaj yéefar ya ñoom ñu lànk danañ ñu leen àtte wala alors nañ laaj ñoom it maanaam dox wala ñu dundale waaye ku mel ne ku mu laaj mooy àtte bi yàlla yàqu mu dana mu àtte bàyyi ku ñu gën di seen wala yàlla li may xam na mu ak ci may xare nga ci jafe yow de way faatakum ndem faat na leen seen lëf min azwaajikum ci jabar dañu rek ku faay ci yéefar ya su fekkee ba jabar dawal fekk yéefar yi nag dañu ay jëkk góor ba ko jël ci yéefar yi nag lànk ne moom delloo dara dal na ci ginnaaw wala ñu xasaar waa ku koy def jabaram dafa murta dem fekk yéefar yi ñu laaj tam da ko jël lànk ne moom du joxe dara waa parce que mu fegeen fayu ba ah doo jox leen li koy ñaanal saa ba dem na wala ñu may defar seen li sa maam sax oo dem ba dañuy dund lee kon boo nekkee bu julli ñu xaree ba màng di ñàkkoon jabaram nañ ko jox lu mu fekk jëlee jabar rek ba tax ndaa wala dañ yàlla def yàlla mi nga xam ne am ci yéen moom ñu ne la gën ngeen di ñëw rek parce que xëy na ñëw Makka. parce que Makka rek boo leen góor ñi fa ñëwoon ñëpp ñu def leen ñaari saa ñaari junni ci góor yéen a ngi ñëw su baaxee borom du fekk bu gudd. laaj leen may kan ak lu ngeen yaakaar ci man ñu ne suñ mbokk mu baax yaakaaruñ ci yow mooy ay ñu de ay mbokk yi ay baykat ak suñu jaay ci doon baykat ak doon suñu jaay ak fi nekk yow nag yaay suñ mbokk mu baax du suñ doon mbokk mu baax. fàtt nañ la yoon lépp yonent na leen ñeer de santé bu ma leen ko jub bay ngeen bare ni dina rafet ci àddina waxu leen sax baal naa leen leen ñu rut daf leen ne ñeer de sax def bu ma leen ko def ñoom ñëpp ñu daan jébbaloo te loolu daa yaay laa wax sunu rasulaay yoon la dara jigéen ñi yónnee ko ñoom it dañuy dañuy jébbalu si leen te fekk na ñu dëng ca dañuy li yonent noonu moom dana ko rey dara ramul na tax mu baal ko pour la xasoo ca kaawara sax dana ko fa fekk rey ko ñun daan na ko jigéen ñëw di jébbalu di rek wóor na yaa yaa na bi yow yonent bi yaa jaa ka dem ci kenn laa moom naa ko wéy ko muy jigéen bari na ko ngir moom danañu jaayante yow alaa laay fi dana ci bu ñu bokkaay ci bilaay ci yàlla seen dara ñu nangu ne loolu sàkkal yàlla bokkaale yonent ne jigéen ñi la wax nangu ngeen bind ne kenn du ñëw yow lu mooy gannaaw bu mu bañee bokkaale ne ndax yow naka jot loolu ngay bañ wala fekk na ko fàcc ci ñu te duñ fàcc mu ne ah man day Abu Sufyaan sama jëkkër ku nay la te dañoo jaboot li muy joxe ci dépense bi suuf jaboot bi su dee naa fàtte doole jënd ak ñu tuur Abu Sufyaan naa ko suturaal ma indi loo jël leew na la wala yas nii na dañ jaaroo ci ñu dañ xas ñoom ci yéen ne bu ñu duggee ci lislaam dootuñ jaaroo indi ne awata si ñun waratu ne ndax bokk jigéen dana jaaroo Omar na yow daay bu xool jigéen ñëpp na doon ñu xoolal ñu di kon jaaroo daal jaadu na. wala yàqul na rey bi ñu aw laa daw nay doom seen te biñ ci doom rey ko nañ daa def seen jaay bi yëpp ci doom ci jigéen waaw dem rey ko mu ne ay gis nañu doom yar nañ leen bañ màgg yow yaa leen rey yonent ne moo def li du hind mu ne ko mën a hind yow yonent yaa fa laa ma salafa yàlla jéggale la lépp lu yëre wala yaati na dikkati ñu ci buutaani ci naara yëpp tey noo weere dara ñu dut ko lay ay di na te kanam seen waa ji dinaa ci tànk seen te duñ jur doom waa taxal ko seen jëkkër te fekk jëkkër ji juddu ko. mu ne wallaahi Muhammad bi de yàlla yónnee ko lu may mu xam le di ko yu baax ci àdduna de wala yaa xam ne que mooy ci ñu la fi maa wëgg ci wiwu te duñ la mooy ci loo digle ci lu baax ñooy di kuñ jëlee lu mooy nangu lépp loo digle ci lu baax rek mu ne wallaahi Omar wallaahi yonent bi de di teew lu may xam le di ko yu baax ci àdduna bi de ba bàyyi la ma jaay dara ñoom. loolu yëpp loolu jaaree fee ñoom ñoom ñu di waaw jigéen ñi rek ba soppi mbaloo ñëw na ñëwee laa yàlla ne daanaka yàlla xaw ma jigéen ñi ñaareel tamit rek maa ngi leen di leen. yaa yaa dañ naan wéyal gaa ngi may faral la ko tawaloo bu dee méngoo xawoon aw xam ba daaw ñu mere ne yàlla yéen ci ñoom ñoo di yëwoo way ñoom xëy na itam maa ngi nañu ne laa xamante ci yore wala dara damaa yëg dama dem naa ko woon pour xaw a yëg fa ñu ne xaw ma ku bëri ci waroon bàmmeel de yëwoo naa ko mën a doon ngeen ni ñu jaay waxtaan naka yëg ba nii maa ngi woon ci suuf ca Bambey ndax ñoom dafa dañ ne ko dee jeex na